mooy laajte quoi ndax ñun si nawet lañ nekk wala. di am xaalis nañu ñëw dimbali jeunes yi bëgg nañu liggéey ñi jàppale jeunes katu foos ba ñuy bëgg rey dañoo sonn dañoo dañoo ñu mënuñu ko defar bi ñu ko mënoon defar duñu leen sax woo ay jafe-jafe la ña dëkkee ci aslem Grand Yoff di jànkonteel boobaak léegi mu mat juróom-ñetti weer li ko waral nag di ay ndox yu taa yoo xamante ni boobaak léegi mu ngi fa boo xoolee depuis avant tabaski ba léegi boo calculé boo léegi war na def ay 9 mois ndox bi ngi ci koñ bi boo xoolee si koñ yi yenn jeunes yi boo xoolee seen loxo yëpp a waga te man lii mënu ma ko maanaam mënu ma ko nangu xaw ma nu mu demee noonu bu dee ñun tam nawet lañ nekk ñu wax ñu saa yu ñu génnee si tali bi gars yi indi ñu saa yu ñu génnee si tali bi ñu jàppanteeg alkaati dañoo sonn si jàppanteeg alkaati yi parce que ay nit lañ comme ñun même bu dul dara ñun ay frère lañ mais dafa métti quoi lu ëpp huit mois ñu koy dund nii bi am na ay jamono mus nañ si tànk ndox tànk si pot ay pot tànk ci lu bëri yóbbul ko monsieur monsieur le maire teg ko foofu après lan la mujjee am fuite monsieur le maire fa woote police gars yi def retour gars yi mujjee ñu andil ay plainte ba ñu yóbbu sama benn copain moo tax ñu ne leen comme bu dee loolu la na leen bàyyi ñun ñii fan yële si ginnaaw ndox bi génnoon na fi côté bee ba nangu benn kër. ca noonu ñu ngi woo autorité locale yi ngir ñu wut ci saafara. man daal benn benn parole laa lu may sànni état état na jël ay matuwaayam woo maanaam ñu mun a liggéey lii ñu liggéey ko jeunes yu nekk ci koñ bi sonn nañ trop xale yu ndaw yi surtout xale yu ndaw yi l'âge de 3 ans ba 5 ans boo xoolee ñëpp am nañ ay waga feebaru guddi yi ñuy wax waga. fii la ñuy segee café fii la ñuy defee yëpp suñu boom suturaal ñu sax léegi ñu fiy taabu taabu di fi jaayee café fi togg ay lekk mais xoolal bu ñu jaayee tey suba du ma mën a jaay su ma jaayee tey suba du ma mën a jaay man waxewu ma sama côté place sax mais xoolal maire bi en face place am la yor di ko loué di fay chaque weer mënatu fi jaay mu client yi mënuñu ko ñëw rek dugg loolu impossible ndax lan force biy génn tali bu ñuy defar xaw ma BRT la xaw ma route passant xaw ma lu mu doon mais lii daal neexul ci xol mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ni ña dëkkee boobu boobule diwaan ñu ngi koy jànkonteel boobaak léegi mu def ay weer ba tax na daal dinañ mer ba futu ci noonu nag ñu ngi woo ñi nga xamante ne ñooy autorité yi ngir ñu wut ci saafara